El Hadj Ahmed Aidara dossier Khalifa Sall ba day eh. mi ngi bëgg a garaaw de enquête yéen a kaay ne en tout cas maire bu Ndakaaru Ndiaye Diop day waaw kan moo war a bu dee dañ koo tëj waaw ma ne ay fanam nag ñu ngi commencé di ko compté mardi tali la ilaha illallah ma ne ca université Cheikh Anta bu Ndakaaru waaw nee na Khalifa Sall day buñ ko condamné maanaam buñ ko attee kon tëj ko day jàppale ne dootul mën a nekkati maire de day berti ay droit civil ak politique ilaha illallah dama ne waxuma ne sax wàllu mairie boobu eh, mais même élection présidentielle 2019 yi day waaw ma ne la xaaf du mën a bokk nag laa la wax yéen kaay gi ne waaye ñi xam ne day ñoom xalaat ne waaw war nañ koo mën a remplacer nag ca mairie bu Ndakaaru Ndiaye eh, Diop bokk na ca Soham Wardini Moussa ak Bamba Fall yéen kaay waaye Bamba Fall day waaw moo ëpp sens ca ñooñee ñëpp nag den parce que moom day ca kaaw Khalifa bokk taxaw Dakar ñaar waxuma la sax ca bureau bi nga xam ne kon maanaam moom la bokk day waaye ca conseil municipal ba tamit day Bamba Fall a nga cax waaw waaw waaye keroog ba Bamba Fall yëkkatee ay kaddu day xam la ni Khalifa Sall mi waaw buñ ko condamné day Idrissa Seck daal mooy nekk kon suñu candidat keroog la digganteem ak Barthélémy Dias ak ñoom Idrissa Diallo day commencé ñagas loolay dëgg xam ne kon foofee nekk day ca la tàmbali kon di leen jubóole yónni ab xamal ko a la te sama rak nag lay nekk ba illaa yawmi diin même bu dee saxoon bu titu njureel gi xam ne kon maanaam bokk nañu ko day buum ko dogi na ëllëg waaw du tax Bamba Fall continuer nekk kon sama rak ba léegi ni la te kàddu xale ba sàll yooyee yéen kaay gi di source a bu daaw da ci am waaw moo ko yeggee askan wi dee waaye Barthélémy Dias day li mu yeggee askan wi ci Vox Populi waaw mooy nee na Khalifa Sall day yónniwul kenn ngir mu dem di négocier laa ma nga ca kaw Macky Sall de maa la ko wax la ko si yéene kay ne waa réew mi day waaw génne dinañ day ay missile sol sol yi la ilaha illallah ma ne waa réew nga xam ne ñoom ñoo nekk diwaanu Thiès ke waaw ma ne la tontu nañ Talla Sylla de te du Talla Sylla na ay daal lu Macky sax ñoo gën Idrissa Seck safrullah moo taxin ma njaay njaay bu réew mi bu Thiès waaw nee na gis nga Thiès kii mësta am am c'est le maire bu waa Thiès fañee ni Talla Sylla bëgguñu ko te Talla li ma koy kon wanteer nga sa bopp yàq nga sa palaxaala jaay sa bopp wanteer sa bopp lu ko fi jar ba nga tàmbalee sa wor gi day yow taala si la waaw ca nga tàmbalee nag maanaam xon di xaxar Idrissa Seck ni le di def yëfu traître mardi tali ma ñaan ñaan yamu ca parce que waaye Idrissa Seck di nee na gis nga nit ñi nga xam ne dañoo am kattan lool dañuy jéggale ñi nga xam ne nag dañoo am xel lool dañuy jëllale te Idrissa Seck day te ñooñee la ne ma ñaan ñaan yamu ca te yéen kaay ma jamal jàngi parce que waa ji nee na gis nga taala si la mi waaw yàq rek xaste bi nga xam ne kon moom lay def ni la day loolee weesu na sénégalais talatuñ loolu lu ñu dundee lañ dal réew mi màggat mu febar la fo lamb day mit le pays va mal te yow taala sele sele bek sedal bi yeb dara ludul beug lu neex maki Sall maki Sall mi nga xamne yow taala sele yow gennel nga ko fi ab morso musique wéyal ko yoni yoni moy doyna sax ngir na xar lu do dojaange yi nga xamne kon mom la maki Sall di def waye nak maki Sall ci bopam nak mo yàqu te moko ko yàq nag Macky nag yàq na ko moom mi fek am néewu politique cadavre politique ne ko yo balé waye lolé day day gaawal daanu maki Sall rek day précipiter surtout maki Sall la la wax parce que yow taala sele yow ko xamne élection député yu ñu génn ni yow jëlo sa troisième ben ñaar yow sa centre de vote ca boppam kon dañ la faa gañe xam nga ne yow mënoo indil Macky Sall dara ba dala booloo jeex laa la wax gars yi Idrissa Seck day nee nañu Macky Sall moomee ca boppam waaw ay xuusma ñàpp dong la àndal di ñoo xam ni seen njàng lu yàlla xam doy na Walf Fadjri ne élection présidentielle 2019 yi day waaw campagne ba daal ni sabar gu xumb na parce que opposition ba day ña nga sur le terrain ñi ànd ak Macky ne kon meeting ga last waa PDS waaw nee nañu Aly Ngouille Ndiaye na tekki ndoom ba tànkam laa lay wax nii ca ministère intérieur yaa jum wala maa jum ma ne la waa PDS loolu lañ wax parce Omar Sarr nee na xanaa déggoo leen kàddu yi nga xam ne kon moom la Aly Ngouille Ndiaye yëkkati ca DCC bi Aly Ngouille Ndiaye nee na lu ma mën danaa ko liggéey ngir Macky Samba Omar Sarr ne kaddu yi Aly Ngouille Ndiaye yooyee inadmissible lii nangu laa wax ku mel nii nag du ko nangu muy organiser ay élection fii ci biir réew mi réew mi mu ko këru adduna laa wax yow Aly Ngouille waxuma la tojaange di scandale bi nga xam ni ko ndax da ca nirib ca ArcelorMittal jële lëkkaloo ca en complicité ak Macky Sall mii ñàkkaloo Sénégal ay junni junni ci ay milliards xam nga ne li nga ànd ak nguuru Macky Sall gi nga xam ne ci guerre Ndiaye na fa jógee waaye jàngalekat yi tamit tey nee nañu Serigne Mbaye Thiam ministre éducation nationale na fa waa FEDER waaw waaw njàng meeg laas yéene kaay nee na jàngalekat yi lu toll ak ñaar ci ay syndicat waaw dañuy amal doxu ñaxtu tey ca Kaolack laa lycée Wal Jojo Ndiaye waaw dinañ amal ab débrayage niki kon suba alxamis tey grève totale le premier marche nationale yéene kaay ma jamal jaa ngi ne kër docteur ya nekk ca Sédhiou Gué Kédougou Ziguinchor ak Tambacounda waaw ma ne la alcool ak coton sax amuñu ko day porte na plainte de santé à du matériel et du transit administratif faux agrément ngir taxawal kon ay fosse clinique privée auto MTA bu ñu jël jaay ko ca marché noir ba eh ay mi quotidien ne man day fi may dik ak yéen mooy policier yii di doodee ka mbéjee policier du bàyyi dóor waaye ñu nekk ca kaso camp pénal ba da ngay gëréew de ndax seen dund ga moo mit wal fa directeur bi yéene kaay vox populi ne wàllu ñanga meeg ñangale mi day waaw BFM bi bi ak dañ koy waaj a privatiser eh way samba dem naa ca lamb ja tribune sox ne Assane Ndiaye promoteur day waaw ak Pape Kile Dóor kay mujj nañoo waxtaan ba juboo alhamdulilah <laughs> alaaji gis nga Casamance gee ñuy wax nu muy gën a jaxe am na ñoo xam ne seen ceeb di gën a niin waaye dañoo xamul rek li yàlla wax ci képp koo xam ne day yee moo tax mën naa la alaaji tëjal